yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé wax na Ousmane Sonko lool bu ko Sonko déggee hôpital la jëm directement faju ji dooree directement ak direct info ministre de la santé doo nit maire bu Yoff di Abdoulaye Diouf Sarr ma nga fay wax ne bu dee xamadi maanaam arrogance ak ñaaw làmmiñ ak i sos Ousmane Sonko champion la ci mënee su ta bëgg askan yu bëgg la bu noppi nga bëggee dëkkee ñàkk keex sa ci seen kaw Diouf Sarr ne li jaaxal ñëpp moo di Ousmane dafa dem fekk jàmburub yàlla koo xam ne duggul ci kenn dara di Famara Ibrahima Sagna Ousmane Sonko dal ci kawam ci lu mu tegul fenn les économies jiital Pastef gi di Ousmane Sonko ginnaaw kàddu yu fi yëkkati woon jëmee ko ci dialogue national beeg ña ca bokki woon Abdoulaye Diouf Sarr wax na ko luy tàkkate du fay nee na Sonko dafa insolent amutub yar xamul tey it jëfi xale lay def ne bu dee ku jug nga critiquer ko ku jug nga saaga ko loole li muy firndeel moo di amoo benn valeur ci Vox Populi mën nañu fo lu dul insolence ak arrogance Ousmane Sonko xamu ko te faaw mu def ci boppam ne doonatul xale jéem a màgg tuuti Abdoulaye Diouf Sarr ne Ousmane Sonko nekke lu mu ci dolli tuuti rek doon guignol ci géopolitique bi na xam ne réew mi weesu nañu jamono yu wut bës ak bëgg a dëkki ay théâtre ci kaw nit ñi ci xët mu njëkku la Sénégal nag fa la Diouf Sarr tëjee musiba ak mbelengaan gi mu xëy di yàkk Ousmane Sonko nee na sonkoo jëfi xale ak jëfi amateur mu di jëfi cuune lay def te jot na nag mu xam ni fii ci réewum Sénégal askan wi rawatina ndaw ñi soxlawuñu antivaleur bu mel ne moom Ousmane Sonko Abdoulaye Diouf Sarr ne te nit boo di opposant ak loo tàng-tàng ak loo tartar war ngaa fexe ba intérêt réew mi doon sa yitte ñi xëy di xaxaraka sax xaaraka tapas Ousmane Sonko yamu rekk yamu rekk ci Abdoulaye Diouf Sarr ne journal Source A mi ngi ñuy xamal ne waa Front Résistance Nationale keroog ba ñuy daje ci seen biir ngir def ab xayma maanaam évaluation ci seen bokk ci dialogue national bekk ci mbirum installation commission cellulaire bi jox nañu Ousmane Sonko ca ndajama wàllam ba mu doy sëkk bokk na ci Bamba Ndiaye mi taxaw ne dañoo war a benn code conduite ci suñ biir ngir kenn bañ fee juróomi personnalité journal bi nañu professeur Malick Ndiaye daal moo fa ne woon doon tubaylu Ousmane Sonko naan gaañi nañu bàyyi mu sedd te ñu dem seeti Ousmane Sonko jéem a waxtaane ji ak moom dialogue national bi tax na opposition bi ñoo ngi mel ne sabar gu tas Sud Quotidien moo ñu ko wax Le Quotidien mel ne ku naan ñu ko ko weddi laajal waa PUR crise pire la ñu jamono ji ne dem gi professeur Issa Sall demoon ca lancement dialogue national bi dem nga neexul liggéey bi waxoon naa leen ne damay dem ci dialogue national bi la tribune nañu la guerre ouverte jàmm jeex na ci diggante Serigne Moustapha Sy ak professeur Issa Sall enquête dina kay nañu looleet sa mooy bëgg am ci diggante Abdoulaye Wade ak Omar Sarr kii di Omar Sarr enquête mi ngi ñooy xamal ne bu moytuwul danañu ko yóbbu ca kanamu conseil de discipline bu parti démocratique Sénégal li ko sabab moo di njiital part bi di Abdoulaye Wade dane woon bu kenn dem ca dialogue ba Omar Sarr moom dem ca dialogue ba yéen a kaay bi nañu temoone day ca njëlbeen ga waa parti démocratique Sénégal noppi woon nañu ngir dem bokki ci dialogue national bi ba jotoon na tànn Omar Sarr ak Cheikh Dieng ngir ñu dem teewal leen fa ginnaaw gi ci la góor gi Abdoulaye Wade ceen ci mayeen li tax enquête mi ngi ñu koy wax lu defu di waxu lu ay di njëmbat Sadio Mané mi toj jamono yéenekaay yépp ànd nañu ak àdduna yépp sumil ko sàppo l'observateur moom da ko bañ ba xëy ci daanu jëllu bambali booleem fu footballkatu Sénégal bi di Sadio Mané masa jaar rek l'observateur jaar na fa ba ni mu gañee coupe Ligue des champions bi lépp mu ngi ci yéenekaay bi Sadio Mané dañuy wax ci l'observateur ne lu mënut a nekk amul lépp ngëm-ngëm la rek record nañu Europe Europe gi yëpp moom la ñu gëm jamono ji moom Sadio Mané Sadio maane moo ko équipe am di Liverpool ñoo gagné Ligue des champions Tottenham la ñu dóor ñaari bal ci dara Vox Populi nañu dara du ko dàq waaye nag mu des léegi Coupe d'Afrique bi